ak contentement jàkkaarloo waat ak yéen daal leen di présenté ndaanaan bu mag euh, ñuy tàmm di def euh, actualité bu xew rek dañuy seeti ki nga xamante ni daal dina méngoo di liggéey ci lu méngoo li nga xamante ni moo xew démb nag umpale wu leen ne euh, làmb ji amoon violence yi bëre bëree ba daan na am au niveau de Pikine moo tax tey jii nag ñu seesi ki nga xamante ni mooy Iba kan coordinateur suñu làmb ji monsieur Ba ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi nuyu seen seen nu mu tudd sax seen internet yëpp maa ngi leen di nuyu di rafetlu seen liggéey euh, ñëw fii waxtaan si si li nga xam ne moo xewoon démb si dox si diggante Siteu ak Papa Sow mu nekkoon nag loo xam ne lu ñu ñaawlu lu ñu ñëpp lu ñu condamné parce que mbër mi nga xam ne moom waroon ñëw honoré contrat am def lu mu war a def toog trois ans war a ñëw bëre si ñu dóor la sabar si bopp je pense que loolu moom amul lu ko gën a ñaaw lu ñu condamné la à avec la ferme volonté parce que loolu warul woon am démb si làmb ci hmm. d'après li ngay wax ni kon da nga condamné ki nga xamante ne mooy Papa noo du condamné Papa Sow non condamné wu ma Papa Sow mais dama ne loolu warul woon am parce que Papa dañ ko doon xaar mu ñëw takk ngemb ñëw bëre si ak parce que ñi tagg seen biir loolu lañ doon xaar bëri lañ doon xaar xaaruñu woon tey ñu ñuy wax ne Papa Sow gaañ nañ ko ba ba bakkanam mënoon na fa des parce que ku jël sabar si bopp ñu dóor la ko si bopp sa bakkan mënoon na fa des peut-être yàlla moo xam tax lu tax loolu amul mu am résistance ba mun a résister loolu mais ñaanuñu woon loolu am dañu ñaañoon bu ñuy génn si combat xool nan la Siteu daane Papa Sow wala Papa Sow ko daane mais di wax si affaire blessure loolu lu ñu lu ñu condamné la waa avec la dernière énergie Mm. Euh, deux ans la ñu toog euh, bëriwuñu ñu leen doon xaar ak leneen loo xamante ni lu bees lay doon wala loo xamante dafay bégal euh, ñi nga xamante ñooy askan wi. Mm. démb na ñu gis liy xew-xew est-ce que ki nga xamante ni mooy Papa bu nekkoon écurie comme Fass dina demee comme ni mu demee. non même bu nekkoon écurie Fass li am démb mënoon na am. parce que man écho yu ma am de site box A lañ ko joxoon mooy vestière A Papa Sow vestiaire Papa Sow A Siteu vestiaire B mooy box quoi box B bi c'était pour Siteu box A bi c'était pour Papa mais il s'est trouvé que Siteu bu mu ñëwee moom moo dem xool fu ko neex mu dem dem toog fi Papa war a toog est-ce que comprendre nga moo dem toog si box donc Papa Sow dem toog si box B léegi box B bu mu toog moom ak euh, batteuru euh, Siteu yi ñoom ñooy daje batteuru euh, Siteu fu mu toog box A ba moom ak moom Papa yi ñooy daje donc foofu la problème bi njëkk commencé si toogaay bi Siteu bu demoon boxe A B bu ñu ko tagla woon Siteu euh, Papa dem si boxe A peut-être lii yëpp du am mun am donc amul question de phase wala kii question d'indiscipline léegi moo am si làmb indiscipline bi dafa bari si làmb n'ayons pas peur de dire les mots indiscipline bi dafa bari si làmb pourquoi ma ne indiscipline dafa bari si làmb promoteur bi day def tous les moyens qu'il faut andi force de sécurité andi sapeur pompier CNG organisé comme nu mu war a yow léegi làmb da ngay gañe sax di di di sànni xeer da ngay gañe di arracher siège arène nationale donc loolu lan la si promoteur mën lan la ci CNG mën loolu indiscipline la boo xam ne mbër yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko jëlee seen kër yi di ko di ko andi si euh, terrain bi ban gis naa ne daal indiscipline moo indi lii yëpp ba nga xam ne combat bi yàqu te combat bi dafa metti depuis 2020 nga nekk ñu monter combat bi ba mënul am loolu dafa metti li am démb moom yàlla bu mu amati si làmb na CNG jël ay responsabilité na CNG sanctionné sévèrement na Matar Ba génn wax ak askan waa làmb parce que Matar Ba ñu ngi koy xaar mu génn wax ak waa làmb tey bijou bi si ci am la nekk 32 milliards du ay caaxaan ñu nekk di ko foowee nii nañu génn wax ñi te ensuite maa ngi ñaan waa askanu làmb ku fi def dara ñu jàpp ko punir ko bu buñ kenn sol dàll dem di di di wallu di ñaan loolu ñu bàyyi ko sinoo rek après affaire day recommencer waat. Mm-hmm. d'habitude dañuy am tendance di wax que ki nga xamante ni mooy Siteu saa yu waree bëri rek euh, dafay am euh, violence. Mm-hmm. agression bi dafay bëri et tout te d'habitude dañoo remarqué ni Siteu kese la naka ngay wax ci loolu. waaw Siteu moom waa yàlla moo ko may mbooloo yàlla nag bu la mayee mbooloo mbooloo mi dina am ñu baax am ñu bon. ñu baax ñi dañ lay topp am na ñoo xam ne dañuy rax si biir mbooloo mi pour mun a def seen sa saal besoin yàlla nag moom may tuur Siteu yàlla moom may tour popularité bi du moom moom affaire buy am ci biir otoom lay nekk walla ci biir ci biir géew bi moom sensibiliser na comme il faut mais boo yi doo mun a comprendre mais moom lii da koy jox image négative lii da koy yàqal lu bare day yàqal lu muy yàqal Siteu moo ëpp tey lu mu koy defal parce que tey ñu soppoon Siteu ñu bari bu ñu gisee acte yi dañuy xaw dellu ginnaaw si moom wala Siteu ëllëg bu amatee combat ñu bari ñu bëggoon ñëw di ko seetaan si dañuy toog seen kër parce que neexul ba neexul nga ñëw seetaan si làmb démb arène nationale ñuy vol ay scooter di arracher ay cheveux naturels yu femmes yu nekk si ay bis di agression de gauche à droite loolu du du du koy moom responsabilité am la parce que ay fansam la ñuy wax kenn wax fans Papa Sow on dit de Siteu donc ñoom la ñuy ne donc moom na xoolaat ginnaawam yàlla may na ko ginnaaw mënul contrôler lépp mais na gën a sensibiliser ay fansam mënul sensibiliser ñëpp mais na gën a waxtaan ak ñoom parce que lii image négative la koy jox tey ñi gënoon ñu bëggoon Siteu tuuti sax démb am na lu leen naqari seen xol. Euh, lu mel nii day waral euh, ñi naan euh, ki nga xamante ni moo beneen adversaire bu ko Siteu amee ay ay fans adversaire yooyu na nañoo commencé ñoom tamit di préparer seen bopp négativement comme comme li xewoon démb rek. Mm. de ce fait loolu mën na dem ba indi woo ci biir réew. waaw loolu léegi moom làmb ji boo demee booy xool sax làmb ji vrai guérilla moo fi am waaw làmb ji moom quoi qu'on dise guérilla moo am si làmb ji da ngay da ngay boo bëri ji seen fans yi dañuy génn mel ni kuy dem xare Badr. pourquoi li sport la day am vainqueur vaincu ak nul làmb ji du xare badar làmb ji du guerre làmb ji sport la comme ñu leen jóot sport yi am na sport yoo xam ne ay milliards lay générer te dañ leen di daan après ñu dem wutiwaat leneen làmb ji ay millions kese la noonu ñu xam ne la lutte n'est pas une guerre nekkuñu si guerre nekkuñu si guerre que les gens munoo gañe di saccager ay siège arène nationale munoo gañe di wër si mbedd bi di agresser ay nit ñoo xam ne bokkuñu sax si làmb ji parce que lii dafa joxe image négative bu bona bona bon si làmb kenn dootu amatul fit dem seetaani làmb pourtant am na yeneen nawetaan yaa beaucoup de violence si nawetaan mais làmb moom la yàlla may daraja donc maa ngi ñaan daal vraiment que les gens se ressaisissent làmb du guerre làmb sport la comme tous les autres sports Euh, est-ce que pour pour éradiquer li nga xamante ne mooy loolu noonu est-ce que duñu jël ki nga xamante ne mooy indi violence bi mbër mi nga xamante ne mooy indi violence bi ñu jéem kaa teg ay sanctions comme de ce fait ay fansam dinañu focaliser wu ci loolu daal wàññi li nga xamante ne mooy violence. waaw loolu la ñuy xaar ci CNG CNG dañuy xaar ñoom ñu def seen réunion waxtaan xool mesures yi nga xam ne yu gën a sévère ñu teg ko si nga xam ne ñoom ñooy les fautifs parce que le coupable ñëpp les images sont kooku tey waruñu ko parce que li mu yàq dafa bari le promoteur il a investi des millions pendant des années ñëw ay journée si benn benn ngoon ay quelques minutes loolu yàqu te moor doom mënoon na fa am donc kooku euh, état bi warul seetaan loolu il faut ñu topp ko ba xam lan la pourquoi mu def loolu suñ ko waree daan teg daan ñu teg ko daan suñ ko waree tëj ñu tëj ko pour joxe joxe exemple ñi nga xam ne yeneen ñu ngi ñëw parce que lii c' est la première fois mu am ñàkk jëriñu Alioune Seye 2 nii la amee woon devant sous les devant le ministre des sports Matar Lo devant l' ancien président du CNG euh, Alioune Sarr ñuy xeex ci biir géew bi ah ba dagg ba dagg Alioune Seye 2 combat boobu mujjewul am Khadim Samb moo ko tëggoon c' était en 2020 le 4 février 2020 donc cas yu mel nii nag moo répété waat démb donc que que le CNG prenne ses responsabilités que le CNG sanctionne durement et sans sans sans sans est-ce que yaakaaroon ne tamit CNG war na jël ay dispositifs wala ñu yokk li nga xamante ne mooy sécurité bi parce que côté Pikine bi noonu tamit y' a y' a beaucoup man côté sécurité bi lu may wax mooy lu may naqarul rek ah euh, force de sécurité yi dañuy jël bu ñu jëlee deux cents éléments dañuy jël cent éléments yëpp wàccee si ci suuf ci enceinte bi mais enceinte bi quelques policiers war nañ fa mën a nekk ñu jël lépp taf ko ci kaw tribune yi ci kaw tribune yi moom moom foofu la coow li nekk. mais boo bàyyee élément yëpp nga wàccee leen suuf loolu day andi encombrement nga am fa batteur yi am fa site am fa journaliste yi am fa batteur yi am fa manage ñëpp wàcc ci suuf mais loolu day andi encombrement donc nañu gën a xalaataat xalaat yaa ngi fi nu ñuy déglu ku nekk ba nga xam ne dinañu mën a assainir enceinte bi mën a assainir ci biti mën a assainir tamit bu combat yi jeexee man dem bi combat bi jeexee maa ngi doon gis di ñëw mais ful bi ngay dajal dal moo ëpp sax force de l'ordre ful bi moo ëpp force de grand combat yi bu amee nay te nañuy wàññi nombre de combat dix combats yi nañ koy wàññee grand combat yi bu amee nañuy siffler les combats à partir de quinze heures au plus tard dix-huit heures nit ñi dinañu pare au plus tard mais dix combats combat bu nekk mën na durer dix minutes c'est de temps c'est combien de temps bàkku yi ñëwagul donc je gis naa ne daal war nañu wàññi le nombre des combats lors des grands événements war nañu wàññi le nombre de batteurs je pense que cinq batteurs war na mun a accompagner mbër je pense que accompagnateur yi ànd ak Siteu wala Papa Sow war nañu mun a nekk sax cinq personnes jarul ñuy nekk dix personnes batteur jarul ñuy nekk vingt personnes sept personnes baax na lan la tëgg xam nga répète ainsi de suite donc nu mu gën a assainir ba wàññi géew bi ba nit ñi wàññeeku loolu war nañ si xalaat CNG foofu la ñu leen di xaar ñu xalaat si ensuite CNG ñu ngi xaar ñu topp. ki jël sabar bi dóor ko Siteu dóor ko Papa si bopp ñu ñu arrêté ko euh, ne ko parce que kooku dañ ko war a kondam ne ki def loolu dañ ko war a condamné parce que loolu euh, euh, li mu def mënoon na bakkan mënoon na fa rot te loolu vraiment bu fa bakkan rotoon loolu dafay dégager lu gën a ñaaw si làmb ñun rek ñu ngi ñuy xool mais lii bu bu bu mordom amoon je pense que day gën a garaaw. waruñu teg daan tamit ki nga xamante ni mooy Siteu. Siteu pour nga teg ko daan dafay xaw a jafe pour nga teg ko daan dafay xaw a jafe sinon peut-être mun nañu xool yeneen mais parce que Siteu instant boobu moom il était de l'autre côté il était moom bu sañoon tey Siteu bu sañoon day ñëw jàmbaarloo Papa Sow. waaw mais suñ ko tegee daan ñi nga xamante ne ñooy ay fansam xam nga mënuñu mënuñu jàpp des centaines de personnes. parce que ñëpp mm. mënuñu leen a identifier. Mm. mais ki nga xamante ne mooy Siteu bu fekkee dañ ko teg ay daan soit ñi ñi nga ñi ñi wàññi ci xaalisam dara peut-être lool noonu dina yar ñi nga xamante ne ñooy ay fansam. ba bu ëllëgee li ñuy def Siteu tey buñ ko sanctionné woon buñ ko ajoon. wala nangu xaalisam kenn du wax dara. Mm. parce que li xew ki ko def ci kaam la bokk. il est identifié que si kaam la bokk surtout tey ku ko ku ko ku ko condamné woon kenn du wax dara ku nangu woon licence am wala nga aj ko wala nga nga nga téerali kaam kenn du wax dara képp ku wax dara da ngay wax waxu naa fekk da ngay wax lu la neex parce que ki ki ko def si kaam la bokk si kaam la bokk si kaamu batteur Siteu la bokk donc loolu yëpp moo tax ma ne la Siteu war na gën a sensibiliser ay fan sa parce que affaire boobu bu muy xew si fekku fa Siteu Siteu mu fi de l'autre côté xalaatul woon loolu ah si te préparé combat deux ans ñëw mu mujjee nii je pense que loolu du du neexul si xool daal li may ne rek mooy la communication de Siteu Siteu tey lu mu waroon communiquer mooy d'abord massawu ci di Papa Sow ki nga xam ne moo nekkoon collègue am collègue am la d'abord avant muy nekk adversaire am mu masawu ko xool santé mu dem soo ko dem ba këram soo ko xalaat lu mu war a wax mais réclamer victoire boo xam ne bëre ko loolu mënul nekk c'est impossible ça ne peut pas avoir de victoire dafa mel ni un tafaagay baabooy bi nga xam ne yàq woon na ñu jëloon victoire bi jox ko baabooy mais après dañ ko cassé def ko sans verdict loolu démb victoire mënu fa am Siteu li mu waroon def toog si plateau bi masawu Papa Sow tey mu sol ay dàllam dem seeti Papa ma masawu ko naqarlu affaire bi loolu moom moo nekkoon position Siteu foofu lañ doon xaar Siteu mais pas di réclamer ay victoire ay dootuma bëreeg moom mais combat amul loolu la Siteu waroon xam sa collègue naroon na dee si làmb ji Siteu dafa waroon masawu d'abord Papa Sow man de loolu laa koy digal te te te loolu moo waroon loolu mooy lu hmm. loolu moom loolu moom peut-être xolama tàng mais Papa Sow peut-être. Euh, Euh, loolu am na mais pap euh, Siteu euh, combat la gënoon bëgg dafa xam naa xolom moo neex moom bu sañoon bëre ak Papa Sow Papa Sow tamit bu sañoon bëre ak Siteu mais lu war a am day am rek mais lii yëpp lay wane ne dis indiscipline bi am ci biti moom mooy répercuter si suñu sport yëpp que ce soit les nawetaan que ce soit la lutte que ce soit le basket le football yooyu yëpp loolu mooy réper indiscipline bi moom moo indi loolu yëpp. Matar Ba mooy li may wax rek sànq il faut mu génn wax ak pop pop kii bi euh, les amateurs wax ak la monde de la lutte parce que il est temps 2020 euh, waxoon naa la ko si kanamam la xeex amee woon. arène national si diggante Alioune Seye de ñàkk jariñu démb encore si kanamam la coow loolu amaatee donc il est temps mu wax nee naa man man je pour que ñu ferme arène national man je pour les gens yi nga xam ne pour ñu ferme arène national pour rek donner un exemple pour joxe benn benn benn leçon pour ñi nga xam ne ñoo bëgg làmb bu ñu fermer arène sax dañuy mujj toog ñëppay toog mbër bi dootul bëri amateur bi dootul seetaan si kal lay metti mataar ba am na lu muy am nañu discipliné balaa leen diñ si fekk parce que boo demee arène nationale da bu ñu la nee bijou bii la fi Macky Sall woon ak léegi da ngay ne c'est pas possible en moins de trois ans mu dégradé wu ni arène nationale boo duggee si WC yi doo xam fooy sa tànk def leen reportage ci VC arène nationale yi ngeen dem xool vous allez être sidéré lu ne moo ngi fa ah ci biir boo xam ne matagul sax 3 ans 32 milliards de francs CFA ñu koy seetaan nii je pense que Matar Ba comme li ma wax il doit sortir parler avec les amateurs ñi ñu war a sanctionner ñu sanctionner leen sévèrement mu bàyyi ñu bàyyi maslaa bi ñu bàyyi maslaa bi. waaw hmm. ah, sama dernier mot mooy euh, lii nag leçon la. leçon la pour le combat Boy Niang 2 Tapha Tine di 19 décembre lii leçon la pour le combat Balla Gaye 2 Bombardier di deux er janvier 2022 lii nag mooy leçon bi gën a mag si avant Ama Baldé Modou Lo parce que Ama mooy recevoir Modou Lo à domicile te ñëpp xam nañ ne l'arène nationale se trouve à Pikine waa Ama Baldé këram ak arène nationale c'est à quelques jets de pierre dañ koy dox ñëw feesal ko duy ko mu fees dell donc les promoteurs yi nga xam ne ñooy ñëw si évén trois événements yi gën a mag yii di ñëw Boy Niang 2 Tapha mooy recevoir Tapha Tine c'est à domicile fan sa Boy Niang yi dañuy ñëw Bawol Bawol yi duñ leen ko bàyyi noonu donc nañuy jël les devants surtout nag ñi nga xam ne maison yi nekk environnante yooyu vraiment ñooñu sonn nañu actuellement parce que agression yi foofu dafa dafa dafa bari to bu combat yi jeexee nañu jël mesure yëpp ba nga xam ne li am nii dootul répété wu à jamais à jamais nañ si tiire ay leçons bu ñu si tirer ay leçons rek je pense que làmb jaratul muy exister.